sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko mbokk taalibe yi ñu ngi ziar bu baax di wéyee liggéey bi nga xam ne amaana moo la dooral ci ziar nga xam ne amaana mooy nekk ci biir dëkk bi ñoo ngi ci kër sëriñ Moussa Ndiaye di xalif eh, sëriñ Modou Socé Ndiaye ibnu Cheikh Babacar Ndiaye Thiergar xanaa eh, di ñëw rek di ko ziar di sàkk mu soññaan mbokk taalibe yi sàkk ay kàddoom xam naa dañ koy jox rek mu daal di ausubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokki jullit yi sant yàlla sunu borom di ñaan yàlla mu jégal nu jégal bépp jullit di sant mbooleem mi nga xam ne moo ñu fii ak ñi leen yebal ñëpp di ñaan yàlla ak Sëñ Tuubaa Mbàkke fi am rek yàlla na ko yàlla ak Sëñ Tuubaa fu leen di ci baax nag di sant bu baax nag di sant bu baax nag barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Baay Cargaan ginnaaw loolu nag nu jublu ci sunu digganteeg sunu borom ndax kenn ku nekkat war ngaa am ab soññ sa digganteeg sa moroomam jullit kenn ku ne nga mooy sa moroomam jullit bañ koo tooñ bañ koo def lenn ndax boo ko defee ëllëg la lay indil ab coono rek nañ leen fas yéenee jub te fas yéene déglu ndigal fas ne mooy moytu tere yi te fas yéene aw ci ndigal yi ci barke Sëñ Tuubaa yal na yàlla ak Sëñ Tuubaa jàppandil jàppale mépp mbir barke Sëñ Tuubaa te aar nu aar bépp jullit barke Sëñ Tuubaa waaw màggal gi de moom li ci borom si jublu woon rek kenn ku ne nga jublu ci bàyyi mépp po te xam ne lu waay def boppam kon kenn ku ne na nga xam ne loo jëfit yàgg-yàgg di nga ci jot ni ngeen fexe aw ci siraatal mustaqima ci màggal gi aw ci jub jàng alxuraan balonte ak yéenente jàmm barki Sëñ Tuubaa nu ko defee de yàlla mën naa def ki nu koy ñaanal dana jot ci yool bi te bu ko jotee dinañ ko gis ndax suñu dëkk bii kat am na lu fi am loo xam ne lii kenn ku ne tënk ci sa bët kon nan gën a góorgóorlu gën koo rafetal te xam na Cheikh Babacar kat wàcce na kenn ku ne kon na nga góorgóorlu sa diggante sa borom lépp loo xam ne lii boo ko defee ku la fa fekk yedd la nga nga moytu ko mooy màggal gi jàng alxuraan jàng xasaayit ñaanal borom. mu jot ci yool bi ci barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Bébé Thiargane jërëjëf. يسلكن اليوم فاتي